xasida yi moo nu war a dàqal lépp lu ñuy lekk lu ne jàng yi moo nu war a dàqal. mbokk yi ñu ngi sant suñu borom nga xam ne mooy tawféexal ak jub ku ko soob ci ay mbindeefam moom yàlla mi nga xam ne moo def azaka muy farata ci waa lislaam te mooy julli nii. ñi ngi koy sant moom yàlla ci xéewale gim ñu xéewale tànnal ñu diine ju jub ñu ngi julli tey sëlmal ci yonentam bi soppeem bi sayyiduna muhammad yàlla ko yàlla doon xéewal ak jàmm moo ko ñaam ak saxaabaam xéewal ak jàmm goo xam ne day sax ba keroog bis penc bay taxaw ginnaaw loolu bokk yi na xam ne sunu borom tabaaraka wa taala dafa farataal azaka ci ñu woomal ci yéen ñu koy génne ci seeni alal di ko jox ñi ñàkk ci yéen sarax la boo xam ne dañ koy tuddi azaka moo ko wutaleeg sarax boo xam ne sa coobar dañ koy defee bii moom wartiif la boo xam ne doo sañoo ko bañ boo amee loo ko defee dañ ko war def ndax ponk la ci ponki lislaam mooy keno yi téye lislaam benn la ci waaye di keno bu am solo lool bu yàlla soññee lool ndax tudd na ko ci alxuraan lënkale ko ak julli ci ñaar fukki barab ak juróom-ñaar ci alxuraan muy tekki kon feddli ko ak dëgër goo xam ne asaka dëgër na ko waaye kenn waru koo sàggane dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax ñëw na ci addis bu wér bàyyi ko ci imaam Buxaari yonent bi sallallahu koy yónni Yaman ne yow day yaa ngi jëm ci nit ñoo xam ne ab téere wàccoon na ci ñoom boo àggee ci ñoom na leen woo ngir ñu seere ne yàlla rek a yàlla sayyidina Muhammad ab jaam la tey ndawam lañ seere pas-pas boobu buñ la ci loolu xibaar leen suñu borom tabaraka wa taala na ci ñoom juróomi julli ci gépp bëccëg ak gépp guddi muy julli juróom buñ la nangoo topp ci loolu xibaar leen ne seen borom tabaraka ci ñoom azaka ñu koy jël ci ñi woomal ci ñoom di ko delloo ci ñàkk ci ñoom buñ la nangoo topp ci loolu nag na nga wattandikooti ci laal dara ci seen alal waaye na wattandiku it ñaanu ku ñu tooñ ndax ku ñu tooñ bu ñaanee ñaanam googu amul kiiraay diggante boroomam suñu borom tabaaraka wa taala ko daal di nangu ba tey ñëw na ci saxiixayni muy hadiis imaam Buxaari ak muslim di wér yonent bi aleyhi salaatu wa salaam wax ne lislaam jii dañ koo tabax ci juróomi keno juróomi ponk ñoo ko téye bi ci njëkk mooy ñaari baat seede yi te mooy nga seere ne yàlla yàlla seere ne Seydina Muhammad ab jaam la tey ndawam nga fas ko ci sa xol ngay taxawal julli juróom tey joxe asaka mii nga xam ne la ñuy waxtaane waaye itam aji màkk bu fekkee man nga ko boole koog nag di woor weeru koor juróom yi mbokk yi ñooy yittee islaam kenn sañu cee màbb benn kon asaka mii ñuy waxtaane tey lu mat a bàyyi xel lu kenn warta doyadil la asaka nag dina waral ci juri kër yi te liñ ci gën a miin fii mooy xar ak bëy nag ak giléem waaye dana war ci mbay yi te li gëna a ci lu ñuy bay fii bokk na ca dugub ak gerte ak ñebbe ak yu mel noonu yëpp na nga xam ne loo ci bay asaka war na ca bu matee nisaab ni ki noonu wurus ak xaalis ba tey asaka war na ci wala boog lu taxaw seen taxawaay bu ne wurus mooy or ak xaalis su ko defee yooyu nag euh, am na luy taxaw seen taxawaay léeg-léeg te mooy xeeti monnaie yi ñu jëfandikoo yooyu mooy tax dana taxaw seen taxawaay bu fekkee ne mat nañ nisaab ñoom ñëpp tenga moom ko boole ci kon ñaari sarta gi noonu mooy li ngay joxe asaka moom day am lim boo xam ne da cay àgg ko wax léegi ci kanam incha allah waaye itam day euh, doon loo moom day doon loo moom moom gu wér bu ko defee am na ci yoo xam ne mat at xëy na lu ci dul mel te mooy wurus xaalis yoo xam ne koy gas kooku saa boo ko génnee mot ni ko doon tam mbay moom saa bàyyee ba mu ñor man jëfandikoo mu mat ni saab asaka da cee war waaye lu mel ne xaalis bi ñu waxoon léegi muy CFA ngi mel noonu lañ ciy jëfandikoo lu ci ma doon dañuy bàyyi ba mat at at mu ne benn yoon ko cay génne kon loolu it te bàyyi xel la. ñëw di ci addis bu wér euh, yéen wàllu saa wasalaam wax ne asaka warul ci pepp warul ci tàndarma lu dul mu mat juróomi wasku kon wasko mooy nattukaay bi koy nattee am na ñuy wax juróom benn bërigo xëy na du ko sori nga xam ne kon moom soo amee soo bàyyee mat ko rek asaka da cee daal di war. mu mel ni am na kuréel gu ñuy tuddee kër asaka yi te Cheikh Mouhamadou Mountakha tànn leen teg leen fii ci dëkk bi ngir ñuy toppatoo asaka yi yaxal nañ lii nisaab ci waxtu wu nekk nga xam ne at mu yeesal ko loolu it xëy na ku ci bëgg lu gën a leer mu ci jokkoo ak ñoom te ci am lu gën a leer ci tolluwaayu nisaab dëgg-dëgg ci mbay ba ci xaalis bi ñu jëfandikoo booy CFA beeg lu ni mel. ba tey ñëw na ci almuwatta euh, imam Malik di wax ne sunna si nga xam ne day. kenn mos caa wote moy asaka day war ci ñaar fukki dinar ni mi waré ci ñaar téeméeri dërëm nga xam dal kon waxale na fi lan moy nisabi kurus ak lan moy nisabi xaalis nisabi kurus moy dinar bi dañ daan jëfandikoo boo ci amee ñaar fukki dinar dañ ko ren ba déwén wala dërëm yi doon ñaar dañ ko ren ba asaka da cey war loolu it imam Abdul Wahid ibnu Ashir di borom téré bu siiw bobu indi na ci ab tënk bu leer ci bayit yi mu wax ne euh, asaka mi ngi war ci meññat yi te mooy tàndam ak resin ak pepp yi maanaam li nga ci war a génne lay wax fii mooy fukkeel mooy la bay lépp su ma tee xaaj ko fukki xaaj jël benn xaaj ba joxe ko bu fekkee ne nag euh, taw bi mooy suuxat wala dex gi mooy suuxat nga xam ne moo ci benn coono ci suuxat gi su boobaa moom fukki yëpp boo xaajee fukki xaaj benn xaaj ba lépp ngay joxe bu fekkee nag yow si jëm yaa koy roosal sa bopp rek ca togg ay coono yërmande yàlla sunu borom tabaaraka wa taala tax na dañ lay wax fukkeel ba bul joxe lépp waaye xaajal fukkeel ba ci digg ba joxe ko mu del wax ne it juróomi wasq mooy seen nisaab wasq wax naa nattukaay la boo xam ne euh, biñ ko xaymaa dëgg-dëgg lépp lépp li ngay bay du sori juróom benn barigo mën na ko ëpp tuuti xay na waaye li ma waxee léegi buñ ko gëstoo rek am ci lu gën a leer incha allah taala bu ko defee kon juróomi wasxu mooy nisaab ci meññal yi muy tànn ak raisin ak xeeti pepp yooyu ñuy bay yëpp bu dee ci xaalis euh, nee na mooy ñaari téeméeri dërëm bu dee ci dinaar muy or ñaar fukki diinaar bu ko defee ñoom nag liñ ci jële mooy kaaru fukkeel kaaru fukkeel mooy euh, xaaja lépp fukki xaaj jël ci benn xaaj ko ñeenti xaaj ñeent yooyu benn boo ci jël loola mooy tolloog nisaab si war a joxe xëy dana gën a leer léegi ci li ci kanam incha allah mbokk yi da ngeen xam ne euh, mone yi ñuy jëfandikoo képp koo xam ne am na ci loo xam ne mën naa jënd quatre-vingt-cinq grammes or mooy juróom ñaar fukki grammes or ak juróom kon su ñun CFA lay jëfandikoo mooy loo xam ñoo ko tëgg di ko jëfandikoo loolu nekkul ne moom laa sa waaye loola boo ci amee lu mën a jënd euh, ña juróom-ñett fi garaami euh, or ak juróom te loolu yaa ngi ko mën a ci tëgg bi ñu tëgg nga laaj ko garaamu or lu muy jar te mu doon or bu sell bi itam bu ko defee saa boo xamee ne wax na leen li nga am kat mën na koo jënd bu la waxee or lu muy jar nga calcule ko ba mu jox la quatre-vingt-cinq boo ko amee asaka war na la wax naa ko léegi nag borom xam-xam yi ngir yombalal ñu ko calcule nañ ko ba wax ñu ko nga xam ne jamono yi toll ñetti millions yi dana tegal fanweeri junni ak lu nga xam ne soo ko dencee ren ba déwén asaka da daal di war bu ko defee kon euh, ku am lu mel noonu am na nisaab léegi nag mu génn ca kaaru fukkeel war na soo xayma woon bañ na la kat am nga ñetti millions yu tegal yooyu nga bëgg caa génne asaka jàppal ne boo xaajul fukki xaaj jël benn xaaj xaaj ba ñeenti xaaj loolu ngay génne waaye gën naa jàppandi ci boo jëlee alal yëpp seddale ko 40 di waaw la ca génn rek mooy kaaru fukkeel ba loola nga war a joxe jox ko nag ñi ko ñu sunu borom tabaraka wa taala tudd ci téeréem bu sell bii di alquranul karim wax ne asaka day asaka euh, koy jox way ñàkk yi bu ñëwee ñàkk daa am ko ñuy tudde faqir am ko tudde miskin faqiir mooy ko amul dara wala boog faqiir mooy ko xam ne amul lu ko doy ci at mi amul lu mën a dundee ci dencul am dundub atam miskin mooy ko xam ne amul dara loolu leen teqale bu ko defee ñoom ñaar ñëpp nag kenn ku ne yaayoo ak ñi nga xam ne liggéey ci asaka ji di ko dajale di ko séddale waa di ko toppatoo ak ku ñuy ab xolam te mooy ki nga xam ne day door dugg ci lislaam ak gëmam dëgër gu xëy na léeg-léeg tumuraange ko ñu jox ko lu mën a téye ba xelam mën a dal ak jaam boo xam ne it ab jullit la te bu amee lu ko mën a goreel sangam goreel ko buñ ko joxee ci asaka nu mën a goreel ñu goreel ko loolu it yéen nañu yokk ci ak ko leb leb goo xam ne yàq taxutoon daa leboon ngir soxlay boppam yu te ñàkk yàlla dogal mënut a fay ma koo jox asaka mu fay ak koo xam dafa tukki wala boog koo xam ne day xare ci jihaad ci yoonu yàlla kenn ca toolu xare bay xare des na ko jox ci asaka ji ak koo xam ne dafa tukki te fa mu nekk amu fa alal doonte fi bàyyi ko am na fi alal waaye mënut a jot ci alal dem bàyyi ci dëkk bi des na ko jox lu mën a dimbali ko ci asaka ji kon ñii la yàlla suñu borom tabaaraka wa taala tudd ne ñoom lañu war a jox asaka mbokk yi yiwu rëy ngi nii muy asaka kon njëkkante leen jëm ci njëggalu seen borom tabaaraka wa taala njëkkante leen jëm ci àjjana joojee nga xam ne yaatuwaay ëpp na asamaan ak suuf te yàlla ko nit ñi ko ragal te mooy ñi nga xam ne kat lii ñu waxtaan waxtaane léegi dafa bokk seen i jikko mooy dañuy dundale ci bu neexee ak bu naqaree waaye warteef yu yàlla waral ci ñoom dañ koy joxe ba di coobar di ca dolli waaye ñi nga xam ne it saa buñ meree dañuy delloo seen xel daal di jéggale te yàlla daa bëgg ñu rafetal yàlla na suñu borom tabaaraka wa taala ngi sant suñu borom tabaaraka wa taala mu tedd mi am yàlla mi nga xam ne mooy jéggalekat bi mooy nangkatu tuub ba yàlla doon li xéewal ak jàmm sunu kilifa Muhammad moo ki ñooñam ak saxaabaam ak mboolem xeetam wépp ba keroog bis penc bi taxaw ginnaaw loolu <clears throat> mbokk yi asakare yi dafa am solo lool ndax day laabal bakkanu doomu aadama ci ak nay day teqale nit ak nay waaye day goreel bakkanam ci muy jaamu alal ndax bëgg alal ba àgg ci nangu koo joxe ba àq yàlla nga di ko xañ loolu jaamu alal la loolu nag asaka dana ko génn ci nit ki waaye mbokk yi asaka day sabab alal gi dolli ko day taxit alal ji barke wàcc ca te barke moom dana aar alal ji dana ko dolli waaye asaka day tàggat doomu aadama bi ci man di dundale alalam ci yoonu sunu borom tabaaraka loolu yàlla soññee ci lool sunu borom yi wax ci alquran di wax ak yéen tamit ko danga jël ci alali jullit yi asaka ndax boo ko jëlee dana leen laabal waaye dana dolli seen alal ji kon mbokk yi da ngeen sant yàlla sunu borom tabaaraka wa taala ci lim leen jox ci alal <coughs> waaye nag mooy jooxe asaka ji yàlla dox nga womal da nga joxe asaka mooy cant gi jiitu nga boole ci rek di saraxe ak di joxe ci yoon yàlla alal ji nga xam ne nag kuutaat nga ci yàlla dala caa wuutal rek waaye alal ji yàllaa ko moom coobareem la la ko joxe kon nag mu la santee nga di ca joxe da war a yëg ne alal ji nga yor nañ la cee wuutal rek nga war a di ca def nañ la ci digal mbokk yi da xam ne it joxe suñu borom nee na képp koo xam ne bëgg nga la jox am njariñ da ngay joxe lu baax da ngay joxe lu baax loo xam ne yow mi ko jox bëgg ko waaye képp koo xam ne lànk na may jox asaka nag ah nga xam ne yàlla tëkkoon na leen bis penc mbugal mu métti ndax mi wax ci alxuraan ne ñi nga xam ne ñu jël wursu xaalis rek denc ko duñ ko dundale ci yoonu yàlla yow yooyu tamit ñooñu te da nga leen bégalee mbugal métti xam ngeen ne loolu day te dëgg dëgg du mbégte waaye xanaa kon dañ leen di bëgg saboot rek ak ñaawal leen da nga leen bégal mbugal mu métteeg leen di xaar mbugal mooy lan seen alal jooju lay jël tàngal ko ci saawaroo jahanam tàng jër ñu di ko paase ak a ñaas ci seen jëy seen wet yi seen ginnaaw yi duñ ci yem kat waaye naan leen lii mooy li ngeen dencaloon seen bopp kon mos leen ci li ngeen dencoon mu ni kon wala boog alal ji denc ko war caa joxe ak yàlla joxewu ko xëy na yaa ngi jàpp ne lu lay amal njariñ la waaye nekk sa lore kese la ndax ëllëg alal jooja lay mbugale yonent bi sallallahu alayhi wa <coughs> ci addis boo xam ne mi ngi Sahihul Bukhari jël ko ci Abu Hurayra jox alal joxewu ca azaka bu dañ koy soppi mu nekk jaan jaan joo xam ne fa ñàng yam fala fala fala yam jaan joo ne bopp sol am kawaar ngir dangar ju bari jaan joo ne dana am ñaari tupp tupp ñuul yoo xam ne yëpp rek yuy tax mu gën a raglu lay doon waaye jaan joojee nga xam ne nag jaan ju mel noonu la dañ koy jël defar kondom ba ci baatam maanaam jaan ji di laxas ci baatam moom mi joxewut xasak ko defee jàpp ci ay ngaamam jaan ji jàpp ci ñaari ngaamam di wax ak moom naan ko man mii maay sa alal ja maay sa koppar foor ba sa trésor ba nga dencoon man mii la kon ki joxewul asaka day yëg ne asaka joojee alal joojee ëllëg jaar la ñooy sappe ñu ñàng laxas ko ci ak doqam mu di ko fitnaal fitna ju métti yooyu diwaan sax bu waxee bi yàlla di wax ne bu njortu mukk ne yi nay ci leen yàlla jox bu la yàlla jox lànk bañ koo joxe bu jàpp mukk ne loola ngëneel la ci ñoom waaye loola ay la ci lu tax loola la ñuy defal ndomb ëllëg yowal xiyaam ngir nay gi nayoon ci alal jooju kon mel ni ndomba googu mooy jaan di waxoon léegi ndax yàlla kat mooy boroom doonal asamaan ak suuf mooy lépp ci loxoom lay mujj moom yàlla te xam na li def dara umb ko ci kon nag mbokk yi asakaa gi doon diru am solo yàlla bëgg ko lool mu bari njariñ lool ci dimbalanteeg ci jàppalante waaye nag bari lor lool ci ñàkk koo joxe ngir musiba ak mbugal yu metti yooyu nga xam ne ci nekk ëllëg waye itam nag ñàkk barkeelu alal ak yàqoog alal ak yëpp ñàkk joxe asaka da koy waral kon nag yépp ta baye xel yalla nu yàlla jëriñ te jëriñ ci alquran yalla ñu yalla tawféexale topp sunna si yonent sallallahu alayhi wasallam <clears throat> yalla bu yalla jéggal suñu xol ginnaaw bu ñu gindee ba noppi yàlla nu yàlla may yërmandeem yàlla nu yàlla ñeewant yàlla nu yalla dëgëral yalla ñu yalla defal mboolem li ñu sàkku waye rawatina bu ñu rafet yalla nu yalla jéggal da jéggal leen jéggal mboolem mboolem jullit ci Dub.